un nañ ñetti kaawu vol yu ñu fi signalé yuy ñaari portable yu ñu sàcc deux pots de qualité donc pour le vol des portables arrêté nañ benn complice et déféré nañ ko au parquet ñaari de qualité il mën na un retendre mais il faut savoir que donc euh, c'est c'est un exposant

au niveau des entrées si aussi ceci. sees yi entrée principale Padois ak Xaar le dispositif contrôle bi mini fonctionne nous permet de permettre retrouver armes yi ñàkkare mën parce que nous yor armes autorisation donc même bu ñu une autorisation le fait juste que nous trouvions armes ici, si oto yi wane na ni donc dispositif gendarmerie mini fonctionne. si circulation routière bi noté nañ ay accident juróom bu ko ñett yoo xamante ne ji accident matériel lañ koy kii yoo xamante ne nit gaañuwu si ak ñaar yoo xamante ne ji ne am na ñetti nit yu si gaañu am na juróomi oto yu ñu immobilisé pour défaut de mutation donc euh, en tout cas si xayma relevé nañ lu tolloog téeméeri infraction ak juróom juróom-benn fukk ak juróom-benn li ñu jël si xaalis nag par rapport à la commission des infractions de la circulation routière juróom-ñett fukki junni la juróom-ñeent fukki junni la ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer 498 mille francs defe naa si gàttal.